ar baa ngi laaj ay jugeem ano Konda Valérie arbitre ba sifflé na Anaconda Valérie Baye Djili ñoo gisee ñaari xale yi Anaconda moo féete à gauche Valérie moo féete à droite booy xool ki di Anaconda mbokk yi moo xaw a waaye est-ce que moo ëpp doole ñaari xale yaa ngi noonu ci digg yéew yaa ngi noonu Valérie moo la féete càmmoñ moo la féete ndijoor Anaconda moo la féete càmmoñ ñoom ñaana drapeau bi tur daa wuy borom ndax buñ ne ku jubbee drapeau bi ne liiru jaan. ku ñu dippee drapeau bi ñu ne le monument de Guédiawaye ñu gis Alioune Seye ñu gis ndeysaan naanaanu géejawaay xale yu ndaw yi xale yi nga xamante ne dañ koo bëgg di ànd ak moom mu leen di safoo ñëpp ñëw ànd ak liiru jaan tey bu ñu ko tuddee drapeau bi jaadu na ñuy félicité bubaax baax jamaïcain bi nga xamante ni moo jël daraja moo jël drapeau bi dara jaale ko ki nga xamante ni mooy liiru jaan en tout cas ñoom ñaari xale yi Valérie mu ngi jiital tànk ndijoor Euh, Anaconda mu ngi jiital tànk càmmoñ ñu ngi leewaatoo nag fausse garde la ak garde waaye ragal naa ni bu ñu xeexee dinañ jàppante te bu ñu jàppantee dinañ bëre jëli na ko Anaconda jëli na Valérie mais Valérie Ousseyn dafa dëgër dafa diis ndaanaan la ci bëre waaye Anaconda kenn du moom ndax njool la bëtt na ko. ko ndomba da koy daan. waaw bëre na bëre bi daan daan bi. daan na Valérie Anaconda xolal. ndongolo daw na dugg ci digg géew bi. am nañ ndam ndeysaan yuuxu na ah Anaconda daan na. bëri na bëri bi moom Anaconda daan na daan bi làmb ja jeex na. ndeysaan làmb ja jeex na Anaconda ngay réng.